intil xayawaani wal xusuusi fii orami sëriñ Ndakaaru bàyyi laa yónnee fa ni leen bu ko kenn fan sa maam Seydi génn jaar pour ci góor góor gi Mouhamad Wade ba mu fa jógee ca la jaar Tiwaawan bëtt kër Baaba Alima dugg Ndoomoor dem Tayba Njaay dugg Fass Wade fu mu ne muy ngaa dëkku Baay Maamur Jaxate fa la maam Seydi dem def ñetti at guddi korité 14 ci la bàyyi laay uy jee boroomam allahu akbar eh, bàyyi laay dafa tëdd sama jël mbalaanu néew bi sàng ka boppam léeg-léeg mu ne mag ji fu guddi fu guddi ana Isaa mu ndaw loolu rek lay wax boole. la ilaha illallah sëriñ sama am lii naa lu mu ciy teg fu guddi gi toll di laaj ana Isaa ndaw léeg-léeg bàyyi dem na. ba làmmi ñu mën a ko tuddal boppam la la la la la la la la la la la la ruugaa ngay tàggoo tafsir bàyyi laay dem na ba laam yu mën a tuka nga dégg xat xaraja ruumin sedi seydi kama taaral xamaama sami anaasa fii muqmi ruu bay lay gi dem na ruu nga dem na mam sëy nga ngaa xam jant fekk nga fa dugg ci moom mu xëy kaalawu kaalaam gi mag ñi jël saxaar fekk ko fekk nga ngaa xam ne ka sa baay dafa feebu leen gi tàggu duma biig allahu akbar mu naan libaasa laay rasoolu laay bàyyi laay mu baax may laay tafsir juróom-ñaari asamaan lay wàcce mu dugg gaaru Tiwaawan ñu konte gaar yi sama soppe ba yaraax ok septième gaar ñu konte gaar yi ba yaraax sa bàyyi daan na wax naan fii yàlla du fi wàcc ni ndox rek la fi wàcc mm-hmm. sama papa xas nañ ko bataay ni bu bàyyiwul bàyyi lay mu naan yàlla ko nit léeg mu noppi sama bàyyi ni góor gi ko waxoon mu ne ko xaw ma dinaa noppi waaye yow doo ko fekk kookoo dem ba nekk xalifa vingt et un ans yàlla yokk leer sëriñ Ablaay maamam Seydi war saxaar kajoor ba yaraax njool war na gaar ba jëm yaraax borom cosaan ya teeru ko danoo xamul fa moo ngëlëm te ñaaw na metti na ay bisub keroog la géej ga neex ngorog wakaam ñu seere ko caaray ndakaaru waa yaraax ñu naan ca mbeex ma jaale tafsir bàyyi laay génn naa dina pam sa maam waaye ñoom di xëccoo sëy naa ma ñoon rakku sëy naa isa génn jaasi ni leen ku laal sama bàyyi te isa ñëw ma tàqali sa bopp ak sa maam ka misli màkk sëy naa ma ñoon sa maam moo génn jaasim di wër mbooloo mi parce que booba am na ñu ni limaamu dogal la woon gu ñëw si ñun génn àddina tey kenn du ko laal ñoo koy laal maam ma ñoon ni leen ku laal isaa ku laal euh, limaamu te isaa ñëwul ma tàqali sa bopp ak bopp ak sa baat sii naa isaa maa ngaa xam ngi yow si bi mu ñëwee ba yaraax maam Seydi dafa taxaw mu gis espèce si làbbe taxaw mu ne lu xew tey ñu ne isaa tey lay ñëw mu ne ñun ñi tudd isaa kaay leen ne noo gis hmm. te kat bul fàttali sa maam génn àddina ñeenti fan kenn robo kon li mu doon wax Abdullah su dul woon dëgg day day décomposé wu day yàqu mais keroog la bàyyi lay gën a saxal li muy wax. bàyyi laay dem na waaye Seydina Isa ñëw na ñëw ba Sainte Marie leer gi fa la leen réer ñu samp fa église ba moo tax ñun Sainte Marie duñ fa fay dara lii mooy histoire Sainte Marie maam Seydi dog jox ci xaan bi sama soppe wàcc. ñëw yoof muri baayam wax xale bu koy wax jullee ne allah akbar kalaa jullee sa baay bàyyil ba sa baay tudde li maama ko tudde isaa doon di ko soog a jullee <laughs> keroog la Seydina Isaa jël xilaafa borom benn bët bi tafsir xam nga saxaar gi dafa am làmp bu ci def nii mm-hmm. moom la gaa yi naan mbaam mu am benn bët waaw mm-hmm. akbar رسول الله يا أبي بلاي يا دي خير خلق لا لا إله رسول الله يا أبي بلاي يا دي خير خلق لا لا إله يا رسول الله يا أبي لا يا خير خلق الله لا لا لا لا يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله لا لا لا لا باي عبد الله واو سقسي اي واي sallallahu alayhi wa sallam yow yaa nu gën rasulullaahi sa baay ba moo di abdallaay sa xeet wi moo di isbulaay salaa alayhi wa sallam yow yaa nu gën rasulullaay yow gën yow gën rasulullaay sa baay ba moo di abdallaay sa moo di isbulaay sala alayhi wa sallam sidina muhammad nabi yaa rasulullaay ndeyam ja mooy aminata mooy sangu naari makkata ña daw safa ak marwata sala alayhi wa sallam woyal ma maam abdul manaaf sëtëm bi moo baaxi jaraaf ginnaani mooy aboo siraaf salaa alayhi wa salaam bismillaahi karim ma sant buur arsilaasim tanaan ko yaa barul alim salaa alayhi wa salaam yaa jalaali wal ikram dolli yonan ba kullaam nit ji salaatu wa salaam moo saaba yaag ñamu gërëm abdoulaye yow jógal ci weeru raabiu awal tagg ci yonentam ba mu fal jiital ko def ko xaritam yow weeru raabiu awal ci biir weer yi yow damul allahu buur bi moo dogal nga làq juddub xaritam xeru rasoolay xaritam xeru rasoolay xaritam moo tax mu bindu lu fi am laxwul maxfoos wal xalam sala alayhi wa sallam yaa Moustapha yaa jarawoy sidina Mohamed mamin sa maam yaa Moustapha yaa jarawoy yaa yaa jara woy yaa Mustafa yaa jara woy allahu jalla moo la woy wa innaka la la xulliqi naa si min yaa Mustafa yaa jara woy allahu jalla moo la woy ñu jiitu ak ñii di la woy ñoo bokk lotti ci woon yaa Muntaxa yaa Mustafa yaa mën a daaw ak safa sidina Muhammad yaa xàll marwata ak safa salaa alayhi wa sallam nabi ki mursal yi fi gën ñëpp nabi ki mursal yi fi gën sërif sa maam nabi ki mursal yi fi gën ñëpp ñoo bokk wax ni moo fi gën buur yàlla moo ni kun mu gën moom mi ko bind moo moo la xam nabi ki mursal yi fi gën ñoo bokk wax ni yaa fi gën buur yàlla moom moom moo ni kun nga gën moom mi la bind moo la xam seydina muhammad nabi yaa rasuululaayi yaa gën malaaka gën jinne yaa kax ñu bind lu fi ne yaa jara way jara alayhi wa sallam seydina muhammad nabi ya rasulullahi yaa gën malaaka gën jinne yaa tañu bindu lu yaa jara way jara alayhi wa seydina muhammad nabi ya rasulullahi nabi ya rasulullahi yaa tax ba musal kalim baru xel som xëy defu yoon mu jaar ca moom na ko gëmoon labal firaw may bañam yaa tax ba muusal kalim boru xel xëy defu yoon mu jaar ca moo ña ko gëmoon labal firaw na may bañam muusal kalim yaay ka taxoon boru xëy defu yoon mu jaar ca moo ña ko gëmoon labal firaw na may bañam seydina muhammad nabi yaa rasuululaay yaa war buraax dem asamaan ànd ak jibril dem jinaan bur yàlla may la loo ko ñaan tukkii ci gii ji xéewalam seydina muhammad nabi yaa rasuululaay yow kepp rek dong yow dong yaa giseek boroom aras mi dul moroom yow yaa fi gën amoo moroom salaa alayhi wa salaam balaa fajar nga jëllu si xiwli yu rëy yi si iblis a jooy di bis yaa muntaxaa yaa jërëgëm moo sowe maam ja aadama moo tax jinaani am jongama moo nu musal ci jaanama moo sowe maam da aadama moo tax jinaane am jongama sala alayhi wa sallam juddu xayrul wara keroog juddu xayrul def leen ni màggal seydina muhammad nabi ya rasulullahi keroog juddu xayrul wara ca makkata ummul xuraat te jëf na bunti sawara ridwaanu xëy afal buntam biiru kisir ni ma bëx leer gaaj fa jaar mu ni rajax seen lal ya ànd ni ma bëx ngir juddu xayru asimi seydina muhammad nabi ya rasulullahi yankoba yaata mu gisaat yunusa yaata mu doxaat ci dënd bii santaat sala alayhi nabi yaa rasuululaay yaa tax ba ibrahima xaliil bur toroxal ña koy fexeel fay sawaraa ma ci ngëneel sala alayhi nabi yaa rasuululaay seydina muhammad yow gën rasuululaay maamin sa maam yow gën rasuululaay sa baay ba moo di abdalaay sa xeet wi moo di isbulaay sala alayhi wa sallam alhamdulillahi la mustafa aadama wa nuuxaw wa ala ibrahima ala alaalamin waxtaara minhum alarab wa minhum qurayshan wa minhum bani hashim wa minhum habibahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa huwa sallallahu alayhi wa sallam safwatul mustafayna al axyaari wa nuxbatu nuxabi wa xiyaarul xiyaari sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi alladina shaaddu diina xayra tashyidin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin wa radiyallahu taala an mumiddi kulli awliyaai rrahmani manbai al irfani cheikh al mashaayix ahmad bna mahamad atijani alsharif alxasani ah laahu daara tahaani wa saqaana min faydihi rabbaani bi anzamil awaani bokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu. waaleykum wa barakaatu. mu mel ni ñoo ngi yëkkati suñu kàddu jiital ci kàddu gi santati Mawlaana tabaraka wa taala niñ koy faral di waxe sant ko ci yépp man gi tal gi fekke gi lépp dellu ci moom dund gi ren ba déwén lépp dellu ci moom du bari pexe sëñ Ibu. du sëriñ bu mën a ñaan du way jur liggéey yàlla rek lay soob mu bàyyi la fi ba heure bu ko neexee mu jëlee la fi dinaay faral di wax ni bokk yi nañu dawal suñuy xel diggante 20 mars 2020 ba fii ñu toll nii ñu nekk ci 2022 toogal fii rek ci sa xel nga xalaat yow xalaatal fii nga toll nii ñaata ñaata ñaata nga xam ni ñoo la ëppoon dugg-dugg ci àdduna ñaata ñoo la ëppoon i moyen ñaata ñoo la gënoon a siiw ñaata ñoo la ëppoon alal toogal fii rek nga wàññi ko sa xel wallaahi di nga lott doo ko wàññi ñoom ñëpp tey jii ñu ngi ci biir suuf kan moo leen yóbbu bu doon ay moyen duñu dem bu doon ak siiw la duñu dem ñun ñi fi toogit nag jalla jalaaluhu wa azza kamaalu rek moom la neex rek mu bàyyi ñu fi moon ku nekk ci saal bi rek na wax yàlla alhamdulilahi rabbil alamin a ñetti yoon ndax nag mérito na ko nag bokk jullit yi alhamdulilahi rabbil alamin mu mel ni guddi na guddik jàmm xaaj mm-hmm. macha allah taxawaguloo de. nii lañ ko bëggee damaa bëgg bu ma demee tuuti nga dugg. bu ma demee tuuti tafsir dugg bu ma demee nga duggaat. loolu moo tax ma jékki-jékki sawaay di ma duggal fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina dañu guddee nag guddee ak jàmm ak salaam fi nga nekkoon du ma ko sori. sànq da nga wax ni ñun Sénégal yi suñu problème mooy fii. Mm-hmm. nabi ne macha allah sërif nuyoo na ba pare. salaay salaam ne. lenn laa leen di moytuloo yéen jullit yi ci àdduna ñu ni ko lan la mu ni sittatu asiya xaju fi aamaal mm-hmm. ba ca jëkk mooy xasu ba ca jëkk mooy al istigaalu bi uyubil xalqi ñaareel ba mooy xaswatul qalbi mm-hmm. beneen ba mooy xubbu duniyaa mm-hmm. beneen ba mooy xillatul xayaa beneen bu mooy zaalimun laa yantahi nabi ne juróom benn ngi nii da ngay woor weeru koor wi ba weer wi jeex nga ne ci ñu jël li nga sonn ci koor ga ñu versé ko ci kont keneen nga toog. allahu akbar ma nag ñuy seetaan ak ñi toog ci saal bi loolu ku ko bëgg man Abdul Xaadir bëgguma ko. fanaanee naafi la ñu jox ko keneen fanaane woor weeru koor wi yëpp ñu jox ko keneen. julli ñu jox ko keneen aj màkk ñu jox ko keneen loo def ci lu baax ñu jox ko keneen sallallahu alayhi wasallam ne juróom benn yi moo koy waral xam naa benn rek laa ciy tudd insha rabbul izza parce que dama guddee ñu ni ko ban la mu ni ba ca jëkk mooy al istigaalu bi uyubil xalqi mooy loolu mooy lan xam nga tey tafsir mm-hmm. bu nabi waxoon ne al istigaalu bi uyubi naasi wala mu ni al istigaalu bi uyubil muslimiina mais déedéet nabi ne al istixaalu bi iw bil xalqi lépp la yàlla bind nga yitte woo xam ab ayibam bàyyi say ayib nabi ne waaj a texe na ñu ni ko kan moo texe ñu ni mooy ki fexe ba moom ay ayibi boppam doy ko bu tëddee guddi di def autocritique ci boppam man ñaata laa def maa ngi dog mbokk maa ngi lekk lu ma moomul tey ji de wax naa lu amul tey dem naa fu ma warta dem nga la sa bopp ba yooyu nga bañati koo def yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum maa qadamat li gadin wa taqullaha inna allaha xabirum bima taamaluun wala takunu kalladina nasullaha fa anseehumu anfusahumu ulaika hum alfasiquun ndax laa yastawi ashaabu nnaari wa ashaabu aljanna ashaabu aljannati hum alfaizuun yàlla ne da ngay wut sa loxo ngeganaayu man la kan bu tëddee guddi nga xool yi nga def yu baax nga ne yii moo baax nga ne ok incha allah fas naa ko yéenee yokk yi nga def tamay safaan nga ne dootu ko ma ko def moo tax nabi ni al istixaalu bi uyubil xalqi ay boo xool uyubu naas wala uyubil muslimina waaye lu rek amuloo droit xool ci moom ayib parce que yàllaa ko bind bindoo sërif rawaan dafa am benn waay bu ñëw mu di ko ganale mu di ko daggal maam rawaan daggal ko xaal waa ji sex teg xaal bi ni ko ah waaye góor gi neexul ba neexul mais xaal bi saful suukar mu ne ko tuub ko mu ni ko kii ki ko def nii ba mu màgg mu jël tamaate ko ba mu xonq mu màggal ko ba mu mel nii mm. bu ko neexoon mu suukar ko moom la neexul suukaru ko ah, moo tax yemal rek ci li mu def rek da nga lekk te noppi mm. al istixaalu bi uyubil xalqi mbokk yonte yàlla nuur lu tax ñu tudde ko nuur anaaha yanuuxu mm-hmm. nawxan mm-hmm. nuu dafa toog benn dawkat la ko mag ñi daan wax imam Pape muy xaj romb yonent yàlla nuux xaj bi ma ngi raas ràgg fu ni mu am fay góom ma ngay soox de di def nii moom xaj bi noo di ko xool ba yàgg mu jëw ko ci xolam waaye ji xaj bi moo ñaaw waay xaj bi moom ni ko yàlla def moom ñaaw na di di wax loolu xaj bi dox tuuti gestu ko ni ko tuddul woon nuux xam nga nu mu tuddoon yashkur gës ko ni ko yaa yashkur noo tiit xool ba xam nit a koy woom déet mu gees xaj bi ci ginnaawam mu ne ko yaa yaskur mu xool ko mu ne ko billaahi su ma doon bind sama bopp maa lay daq yaa ngi may jëw ci sa xol bi yàlla xamal na ma loolu bu ma doon bind sama bopp maa lay dàq mais loolu wax ko yàlla sama melokaan ni wax ko yàlla man bul ma ko wax allahu akbar noo tiit jooy yi mu daan jooy ba ñu tudde ko jooykat bi Cherif ni loolu moo indi nuux min anaaha yanuuxu nawxan kon al istixaaru yoyu bil xalq sidna Muhammad dafa romb sa maam saxaba yi topp ko ñuy dox ba yàgg ñu romb benn xaj bu dee mbedd mi mu ngi xeeñ biñ ko rombee aba yëpp taf seen bakket mu am ca ku ni eh, mais xaj bi xeeñ na de effectivement xeeñ na sidna Muhammad mel ni ku ñu sotti ay yoon ak ñu ko ngani lan ñu ko wax ma dara dama ni rek mbëddum xaj bi xeeñ na mu ni mu dajale saxaaba yi ñu wër xaj bi mu ni leen instant bi lan ngeen mën a wax ci xaj bi lu rafet lu dul meddam mi ñu naan ah man de xaw ma ko ñu naan ah man de xaw ma ko moom mu jekki-jekki ni man de xam nga lan laay tudd ci moom neexul ba neexul meex xaj bi bañam yee weex aka rafeti bañ mm-hmm. aka neexoon ngeen seetlu bañam yi te bañ a tudd meddam mi bokk yi al istixaaru bi uyubul xalq waa ndegam nag ab dawkat ab ngay xas yàlla mere la boo ko tegee nit boo fekkee sang bu yàlla gërëm nga xas ko boo fekkee koo xamante ne yonent bi gërëm na ko nga xas ko boo fekkee koo xamante ni nit ku yiw la nga xas ko ndegam xaj nga xas bokk yi nañ leen dellu si istixaalu bi ayubil xalq hmm. gis nga nit ñi dañuy coow rek bu coow jubee nag ñi nga gën dugg ci ñi la gën dugg ci mm-hmm. loolu la yàlla dogal waaye kañ ngay am teraanga ci kaw suuf mooy koo gis muy dox jàppal ni moo la gën gis nga àdduna ki ci gën a garaaw mooy borom mbubb yu gàtt yi man dama leen a ragal mm-hmm. maa ngi koy nettali keroog rek sërif dama toog ca daara ja ca kaw mm-hmm. ca troisième falaa toog di werd yàggul li may wax de ma jékki-jékki mu am nit ku weex ku ñëw ab tubaab la tubaab nag lay làkk mais daara ja ñaare ku fay dugg xale yi daañ ni la aksil ñëw ci man ni ma am na ku lay seet mais damaa jékki-jékki di weer ba yàgg rek mu mu tëgg miir bi ma gestu rek yem ci moom wallaahi maa ngi gis teeñ yi di dox di wàcc ci moom mais nit ku weex la jiin bi mu sol ma ngi xotteeku ma ñëw mu làkk ma maa ngi comprendre nag la muy wax ni ma dama ñëwoon fii doon am ñu ma lebaloon sama xaalis man baykat laa woon mbooro laa dëkk ma leen di fayeeku si bi ma leen di fayeeku si gisuma leen ma laajte ñu ne ma am na ku nekk fii koo xamante ne ab sëriñu daara la ma ne naa ñëw ci moom mu dimbali ma wallahi wa bi sharafil quran ak sama koor gi mu fekk ma yor ñeenti téeméer ma xaw a ba yàgg ma ne est ce que kii yàlla yabalu ma ko ci man ma làmb ñeenti téeméer yi jox ko mu ne ma merci beaucoup ma ne ko ok mu daal dem saa waay mu am benn message bu ñëw muy xaalis bu takk orange money lay doon moom la woon. moom la moo boobu sax nag wéef xewoo ko. mais orange money du ma ko wax. wallaay du ma ko wax ndax daa buur orange money rek. mais gis nga Ibou. <laughs> damaa gaawantu dama ko Cheikh Tidiane daal di yeggale werd wi soo ko xam lan la man daal gis naa orange money ci kaw. xooluma nag som bi ma pare rek tijji da yàllaa ko yebal ci ma. moo tax bokk yi nañ leen ñu dellu siwaat xam ni boroom mbubb yi yenn saa yi nga teral nit koo xamante ne dootoo tedd di ci kaw suuf waaye yenn saa yi nga teddadil nit nag dootoo tedd mais secret yi ci nit ñi la ne yàlla li mu yor ci jaamu ci jaamam yi la ko def xoolal benn waaye ngi nii reeru na waaye am njàngat la dafa yor otoom di dawal ba yàgg mu dem ba ci benn pont pont ñaare fu ñu ko def rek fu nit mënut a jéggi am na ndox wala mu xóot. Mm-hmm. mais pont ba nag ndox a ci ne. mu dawal ba ci pont bi mu kërëwe mu génnee kirij bi kirij mu jóg muy dindi pono bi dindi écrou yi teg nii ci wetam wàccee roue secours bi war koo monte far tànkam fël écrou yi écrou yi wadd ci biir ndox mi mais bi muy wadd am na benn waay boo xam ni awra yi sax nëbbu ko. ma nga ngeganaayoo ay yéreem di way ay wayam di xool waa ji rek sa waay ni gis écrou yi mu tiit mu làmb téléphone bi kon de kon boo demee xëy na waa daa nekkul orange comme mooy seen waay moom la moom la lay doon mu composé far jot boîte vocale xam nga ku mu waa woo mécanicien pour mu dimbali ko jotu ko mu dem ba ci maal bi mu sëgg nii jàpp nii waa ji di ko xool rek ba ak mu ni bërët nuyu ko sax ni bërët ni ko waa sawaay looy def fii waa ji soo man sëñ bi <laughs> xoolal man sama mécanicien laay seet pour defar sama pono bi mu ni ko dama lay laaj yow yow yow luy sa problème mu ne ko man sama pono bi moo crevé dindi naa secours bi war koo monter mais écrou yi sama tànk ko laal mu wadd waa joojee sax <coughs> dégg nga sàngul awra yi ni ko waaw sa pono yi ñaata écrou moo ci ne oh. ñett yi des mu ne ko moom ma ma xool daal ni ko en tout cas bu ne am na carte mu ne ko dé léegi nag doo wekki fii benn wekki fii benn wekki fii benn def ko ci nga jël sa secours bi monte ko jël ñett yi bu nekk am ñett nga taal sa oto bi di jóg fii ngay xoole nii rek yàlla sa waay daal di jël puus monte mu dëgër mu seere ba mu kiij kiiji mu dëgër mu taal dugal première dem ba fële mais nag ngorom mayu ko mu ne ah non attention man il faut ma remercier sa waay nag ndax bu loon moom ma fanaan fii mu long commencé arrière ñëw ba egg si fekk mu tëdd waa ji ni ko waa lan laati waa ji tëdd de lan mu ne ko mais yow dofoo mais di fii mu ne ko si pourtant dof laa mais koowu ma mais yow da nga koow yow ci koowu dëkk bi nga bokk parce que li ma la wax nii lu mën a nekk la moo tax gis nga gars yi affaire yi kenn xamul fu mu nekk <laughs> kenn xamul fu mu nañ ko moytu bul ma xeebal borom mbubb mu oyof koo gis rek jàppal ni moo la gën. maa ngay dem benn boobu rek ci laay yem incha allah ndax dama guddee guddee jàmm ak salaam. tafsir wax naa la léegi ne la yenn saa yu coow juddu. Mm-hmm. xoolal ku la yées fopp ma nga ca. Mm-hmm. Cherif xam nga yenn saa yi ñu dàq sàcc am na ko ca topp naan sàcceey. sàcceey moom la mu sàcc ci këram bu ñu ko xamoon bàyyi waa ji te topp ko moom bilaay maa ko wax ilimaan ji yàlla nattu ko nattu nag lay doon mu tooñ doomu jaamu xanaa xam ngeen li ma bëgg wax ah, doomu jàmbur xam naa rek daal tabarkàlla mm-hmm. coow li jàppal bàyyi jàppal bàyyi jàkk ji nag imaam daa tooñ doomu jàmbur imaam nañ ko folli imaam mu ne leen effectivement neexul ba neexul mais yàllaa ma nattu xëy na it nag dama saay-saay looloo ma ci dugal waaw amul problème mhm. insha rabbul azaman bu ngeen ma follee fal keneen bëgg naa garaawul waaye ni ko kon baax na mu ni leen bu alxamesee ci ngoon 4 heures da ngeen ñëw ma delloo leen seen jàkk ndax nag rus naa amul problème pour ma wax la rek nit ñi bu coow juddoo ñëpp ci ànd mhm. waaye ilimaan doon ku sérieux doon ku dal indi si jaadaam teg benn kaamilam quatre heures mu ni gaa yi ñëw leen al di jël dóor loxoom ni billaahi wallaahi tallaahi ndaw sii day maa juum ànd ak moom ba ko dal dal ko hmm. daal teg kaamil bi ni waa jàkk ji nag bala ngeen may folli def leen ran noddukat yi kaay leen waat <laughs> fi ma jaar ba ndaw si lii mu am ku ko musta def rek kaay tàpp quatre heures et demi kenn jugul mooy la kaar kenn jugul mooy dix kenn jugul mu ne ana noddkat bi mu ne ko maa ngi ni mu ne noddal ba kenn tuddati ma maa ngi yéen a yem dama feeñ te feeñu leen moo tax ñaare coow da jug tàbb koy rasulillah yi <laughs> laqad haja qalbi lil xaniini xajuulu kàbbu nga ni laqad haaja qalbi lil xaniini xajuulu laqad haaja qalbi lil xaniini xajuulu laqad haaja qalbi lil xaniini xajuulu Sidi yoonu Sow Sidi Xaaji Maalik nee na laqad haaja qalbi lil xaniini xajuulu Sidi yow beneen xalima loo wax Muhammadu Madawna ak lan ak lan. umdatuna qudwatuna. su la yow nag loo wax. muhammadin habibika alkarimi. te eh, waay mais seet leen yu neex yi. kii nee na muhammadun maljauna. Mm. kii ni muhammadun habibika alkarimi. laqad haja qalbi lil hanini ajub. ni tas xale maam ñu ne ko Maodo foo jëm. mu ne man damaa jékki-jékki rek moo am lu yëngu ci sama biir. allahu akbar xol bi yëngatu na. wóor na ma ni. maa ngi mel ni ku yara dal xam nga fu ma jëmam maa nga jëm ci xurwa demal wa rakbun ila waadil xaqiqi xajuulu li ma ci neex nag mooy am na gawar goo xamante ni jiitu nañ ma ñoom yegg nañ ca xurwa te man mënagumaa fekk fexe ba yegg cog waadul aqiqa waadul aqiqa soriwul midinatul munawara moo tax mu ni qultu li ayni in taqallaftu moo da naan garoo ga naan nit ñi maa ngi naan sama ñaari bët bu fekkente ni mënumaa dab garaw ga wala ma dem fekk fa ñu nekk kon de nee naa leen tuur leen tuur leen bi amtaari shawqil kal aqiqi tasi maa ngi leen di ñaan ngeen dotti ay rangooj yoo xamante ni day ànd ak deret xonq ba mel ni peru aqiqa ku sopp Seydil Haaji Malick anuuxu kama naxat xamaamatu aykatin Seydil Haaji Malick nee na maa ngi yàkkamtee dab garaw gi maa ngay daw ba yàgg maa ngay yàlkat nee na maa ngay xëxët maa ngi mel ni pésaxum gol ba yuhayyiju naxwal bukaa'i hadiilu kookee nga xamante ni moo doon jooy cuuj ba maa nga mel ni moom muy hadiil wa dunya yaquun ala faqdi yusufin Seydil Haaji Malick nee na na yanqooba sax maa ko féete kaw keroog ba mu ñàkkee yuusufa waxtarxamu ni waxta nawaisa kuulu jigéen ji nga xam ne benn doom bu góor la am far doom ja faatu na muy jooye Seydi Aj Malik ne maa ko gën a tari jooy waaka bi damin xubbi man lam ulaqi oh, wuy sama man xaw ma fan laa jëm ci bëgg koo xam ne du ma dajeek moom baxru stiaqi lil huyaami yow sama géej gaa ngi géewweeku ndax cofeel gu ma am ca waaja te waxagu ko taraw amaama naajiyaati mubaariyan maa nga gis gawar ga ña ngay jëkkante ca kanamu naaru góor ya asira ah, sayfi lil jibaali tamiilu ña ngay jëkkaleeg bànjool yi ak cella meer yay daw amuunun ay gileem gi ku ñu la ci pakkatal hijaanun aka gaaw te dëgër ah, ma araw saamatu gileem gi du sonn tafsir génn moo ngo gi war bi mirtin bii du tuyuuru fuyuunu bi mirtin ma ngi jaar ci àll boo xamante ni feetu àll ba ma ñay yaa fay daanu ci la picc yi xéew mu ni xan li baabil ayi wal ayi wal hudaa Malick nee nag maa nga dem nag ba yësal gileem ga ci buntu aaya mu nii xan bahattu aminil waxyi wa huwa rasul mu nii xan li baabil aayi wal aayi wal huda mu nii xan li baabil aayi wal aayi wal huda munixan li baabil ay wal ay wal huda bu fekkee am na ku bëgg bàyyi sëriñ Babacar si loxo ci kaw munixan li baabil ay li baabil ay wal ay wal huda inna fatahna laka fathan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxara wa yutimma nihmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza huwa alladi anzala sakinata fi qulubi almuminina li yazdaadu imana كان مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما منيخا لباب الحي والآي والهدى سيدي في مستشفى في مستشفى جاي كان غني محمد مرجعنا سيدي نينا كي سيدي عاج مالك سسل نينا كوكاي سيني ويرواي عمدتنا قدوتنا ñun ci moom la ñuy jafandiku moom lañ ñu royloo yawmal jazaa'i zuxruna keroog bés ba yàlla yi fay moom rek la ñu yaakaar muy suñu ndax dëxëñtee bisil ibada farhami keroog bu yàlla yërëm jaam yi rasulullah rek lañ fa yaak fa huwa nabiyu rahmat xamoo ko mooy yonent bi yërmande bi mooy baabu kullu ni'mati mboolem xéewal yi rasulullah yi porte bi xamoon yonent bi mooy masdaru kulli hikmati mboolem xam-xam yi ci moom lay génn ci dënnam mooy malja'i kulli zaimi képp ku jàq ci rasulullah ngay wéeru shafi'una xayrul wara borom bu mooy gën ji mindeef man bi liwaay bu shira moom la ñu bëgg liwaayul hamdi qad xasawa rabbul wara yàlla moo ko jagleel xusna sana fil muhkami taggun yu rafet moo ko jox ci alquran ala badril budu waay waay waay yàlla jullil ci weeru weer yi waay fi nekk tey góor ñu def ñetti salaatul fatih muy suñu addiyee ci moom allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima xawal xaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والقاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم sulay kooku koy kan muhammadan xayral bariyati ata neexul ba neexul mooy ki nga xamante ni moo gën ci mbindeef lan la indi naka qad taala kulla fataa moo fi indi diina joo xamante ni képp koo xamante ne aste mënatoo koo indi nuuru nabi habibillahi safwati mooy tànneefu yàlla mooy leeru yàlla moom la yàlla sellal min nuuri rabbi bi laa raybin wala tuani sërif nee na mooy nuuré ni mooy borom ñaari leer yi sëriñ Babacar Si Maalik nee na lu mu wax rek dëgg la kan moo fi gën a bëgg sëriñ Babacar Si man da ci laa bokk min nuuri rabbi bi laa raybin wala tuani amul benn sàkk moom rasulillahi ci leeru yàlla la jóge moo tax mu ne ana min allaahi wal muminuuna min nii fal qawlu awla ihtimalan thabitan alalan lii may wax nii lu wér la lu sax la loo xamante ni feeñ na waat naa ko waat naa ko ci lu mu mën a doon leer yu jëkk yooyu moom la leer gu mu mooma bil bayti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allah leer googu nga doon dégg moom la leer nga gisul moom nga nga gis moom la takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun aywa arab yi ajam yi moo leen gën a tedd muhammadun rasulullahi walladina ma'ahu ashidda'u ala alkuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dhalika masaluhum fi tawrat tawreeti wa masaluhum fi linjiili ka zar'in axraja shat'ahu fa aadara fastaxlasa fastawe ala suuqi yujibu zurraa liyaqida bihim alkuffaar wa'ada allahu alladina amanu wa amilu saalihaati minhum maxfiratan wa ajran aziima bismillahi rahmani rahim ya ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqu allaha inna allaha samiun alim ya ayyuha alladina آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أجمل من محمد أكمل من الحاج منصور سمالي sayyidina muhammadul ajmalu man mboolem mboolem mboolem kuy rafet rek rasulullahi ajmalu man fil kawni xalqan wa shiyam ku yàlla bind rasulullahi la dàq moo la gën jikko xayru nabiyil mursali moom la yàlla yónni ku yàlla yónni moo la gën min insi wal jinni jinne ak ñépp ci yam moo xam xayru nabiyil mursali ku yàlla yónni rek moo la gën lil insi wal jinni jinne ku dul jinnee ci yam ka annahaa lii noonu lii noonu seereel ci kàddu <laughs> waay waay joxante leen loxo baaloonte leen àq na ku ne jox loxo ki mu dendal ni ko baal ma ko baal ma waay ka annahu séeréel ci ka annahu kama yasha ma delloo kàddu gi bu siini كما يشاء xam nga lu waral mu xool ko ni كأنه كما يشاء loolu mooy ko waral كما يشاء li waral Aji Mansour xool Seydina Muhammad ni كأنه كما يشاء كما يشاء كو خمني خلقه الله تعالى فجعل رأسه من البركة وعينه من الحياة وأذنه من العبرة ولسانه من الذكر وشفتيه من التسبيح وريقه من عسل الجنة وشعره من نبات الجنة كو يلا بالنبي كأنه كما تشاء كما يشاء baayu Fatima baayu Roqaya baayu Zeynabu baayu Mukalsoom moom la doomu Sofeetu ñang jeeg Alaaji Malik di joobe muy Alaaji Mansour ka annaha كما يشاء وأجمل منك ترقت شرفنا وأجمل منك لم تلد النساء خلق مبرعا من كل عيب كأنك مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء عائشة كوخون اي خمنا الوار اللون ما يا عائشة دادان نيو اي سور دي جاي benn bis nee na mu toog di ñaw ba yàgg fi mu toog di ñaw lampe bi fay puso bi wat muy xool lu mu niite mais gisul lu mu taale lampe bi fi mu toog noonu di bañ a jóg di dëgg ci poso bi te bëgg naa àggale ñawam baayu Fatima doomu Abdoulaye Diak Amina surtout Abdoul Moutalib ba surtout Hachim ba Seyyidna Muhammad maamu Cheikhuna Tijaani ni dëll foofa leer naññ naññ naññ yaa Aïssa gis poso bi bi mu téyee poso bi teg sor bi ci kawam xool na bi ni ko waaj manu min ka lam tara qattu ay nii ñaw benn sor xoolaat ko ni ko waaj manu min ka lam talid nisa ñawaat deuxième point ni ko xuliqta mubarraan min kulli aybin ñëw troisième point ni ko ka annaka qad xuliqta kama tashaa'u walaw sami'u fi misra ah. awsaafa qabbihi lamma badalu min sawmi yusufa min naqdi wa sahbu zulayqa <laughs> law ra'ayna jabinahu <laughs> la aatharna bi eh, eh, qulubi eh, ala al-aydi ka annahu يشاء yaa ngi may nettali yonent yàlla Yuusufa ak Zulaykha wala Zalikha boo ci wax baax na mooy jabaru ministre ba nga di kan waxaatal bu Zulayqa mooy jabaru buuru Misra law raayna jabinahu séeréel ma nettali la ko nga doog a dem law raayna jabinahu wasabu Zulayqa yonent yàlla Yaaquuba ay fukki doom yu góor la ko yàlla may wasabu Zulayqa fukki doom yu góor ya taaw ba mooy Yahuuza wasabu Zulayqa déedéet waaye daal caat ma mooy Benyamin ñii ni déedéet Yuusufa Abdallah Yuusufa Benyamin ñoo bokk yaay ña ca ñoo bokk yaay wa sahbu Zulayqa xale yi daat ni daa mel suñu papa daal Yuusufa ko gënal wa sahbu Zulayqa suñu papa daal daa mel ni rakkam ji ñoom la gën a bëgg wa sahbu Zulayqa ba ñu ñëwee ci seen papa ni ko papa lan moo waral wóolu wooju ci Yuusufa ci tënk daal seen papa jël na yuusufa jox na leen ko xale ya ànd ak ko ca teen ba ba ñu ko defee ca biir teen ba moom yuusufa am na am njëgg benn convoi bu fa ba ñu génnee yuusufa am na benn buur bu jënd yuusufa buur ba nekk ta ja li ñuy wax la femme de mon patron dafa nopp yuusufa falammaa ra'aynahu akbarnahu وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحسحس الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وصعب زليقا سيدي لغا ما بغا واخ دال موي غيسنا زليخا بي تشاو لي باري ñu daal ni jabaru ministre bi daal ndekete surgaam jaam bi doon sàkku mhm. jëkkër ji ni tëll yem ci bi mu ci yemee moom jëkkër ji liir ba woon ca berso ba moo in kaana xamisuhu qudda min xubulin fa sadaqat wa huwa min alkaadibina damay delloo kàddu gi borom bés wa in kaana xamisuhu qudda min duburin fa sadaqat wa huwa min alsaadiqina liir ba nga ni bàjjanam la ko tudde muy zalixa liir boobu la ñu di ko wax zulayxa law raayna jabinahu waaw eh eh eh dinaa ci li ngay wax de dinaa ko firi de dama cee agseegul rek ñëwul bi ñu xoolee gis liir bi li mu wax dëgg la bàjjana ma doon sàkku yuusufa jëkkër ji nii mbooleem waa assemblée bi mhm. coow li bu mu génn suturaal leen sama jabar ndekete am nañu ko dégg coow coow la mhm. coow la bari lool mais xam nga jabaru ministre bi ni mu def muy Zalixa daf leen a invité ñoom ñépp ñu toog langu gu yaatu mu jël ay paakaa ki fourchette jox leen jël ay fur wi jox leen ni leen aywa bismillah ku ne tàmbali dagg sa pom ak sa orange ak sa ñoom seen di xolli mu ni yuusufa uxruj bi yuusufa nee tëll ñoom ba ñu ko xoolee kenn ku ne jaawat la nga pombeeg sa loxo ni nii deret ji di génn dagg te yëguloo ko dagg sa loxo te yëgoo ko hmm. daal ni ma hada bashar in hada hmm. illa kon karim e eh, kii du nit kii du nit kii malaaka la xam nga nit dafa tàmm xam nga ma soo gis malaaka mais loo ma masul gis rek toujours da koy yéem kii malaaka mu tedd tedd la sax kii sax du malaaka mu ndaw malaaka mu ngand la ndaw si xool leen ni leen yéen lii ngeen ma doon yedde yéen kii man ma dëkk ak moom ñaata fan ñaata weer mu may bëgg a rey ma ko sàkku man la man la neex ma sàkku ko yéen bu ngeen dëkkoon ak moom fu ngeen jëm yéen kii benn seen rek ngeen ci am xoolu leen ko bu baax sax tëll la def ngeen dagg seeni loxo woo infirmier bi ni ko demee indi alcool ak mer korokorom fajal leen seeni loxo maa ko doon sàkku moom la ni yonent yàlla Muhammad nag taar ba woon ca Yuusufa moo dàq bosam comme gaa ja gaa ña nga xam ni jigéen ña daggoon seeni loxo ngir Yuusufa ay waay bu ñu gisoon jëwu sayyidina Muhammad ba law ra'ayna jabinahu la aatharna bil qat'i al qulubi ay dama la bëgg dugal xilaas aha aha xilaas laa bëgg déedéet ibu ibu ibu mooy dem ibu mooy dem ah, ibu mooy dem mooy borom bis bi ñun dañ ko doon jàppale rek ibu ibu laay maxtaar bis bi sa bis la yaa moom lépp laay maxtaar sa maam ay yaa ngi woon ci sa maam Seydina Limaamu sey eh, ibu loo ñu jox baax na jëlal demal jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf laay maxtaar yàlla yàlla doon xéwal amiin yaa rabbal alamin defe naa lii Chérif Mamine lii bu doon am ci réew mi ci lu bëri dina baax mhm. nag Euh, tafsir am na ñu bu bëgg suul suñu liggéeyu maam yi démb mm-hmm. mm-hmm. démb rek boo dégloo internet bi nga xool nga xam ne gars ñu ngi suñu kaw mm-hmm. bu ñu nekkee suñu kaw kon ñun ni ngànk diine ji war nañoo nekk def benn am deet Serif ci lu wér te bu ñu ko deful aji pap suñu kaw la jëm euh, te fii réew mi jëm ñun ñuy dem bitim réew sama papa daan wax naan li yàlla defal waa senegaal su ko yàlla xeebee sama Pape ma Mamadou Tidiane yi an yàlla yokk leeram nee na bu ko yàlla defal waa senegal su ko dindi woon yàlla du am dara li ma bëgg a wax mooy tariixa yi na pas-pas bi yokk defe naa Serif Maamin mi ngi koy wax boo demee ca tari Cheikh Mbacke ja mm-hmm. wallaay boo fekkee xale jigéenu Cambérène yi bu ñuy jàng xilaas da ngay tiit mm-hmm. da naan xanaa ñiy Tiwaawan la juddoo mm-hmm. démb rek ñu ngi jàng islaalu seydina siddiqi aarifahum démb ci bunt boobu lañ nekk di fa ñu ñëpp def naa sama kër ñi nga xam dëgg-dëgg xam sama kër ak sama oto bu ma mën a yor xilaas da ngay fekk ci biir kon yëf yi du ay mbooloo tax déedéet du mbooloo tax wala xaw ma ni ko gaa yi waxe moom ku ko bëgg ji utile base yaa xam waaye bu ànd ak yàlla ak yonent bi doo am benn jafe-jafe mm-hmm. kon tafsir shérif Pape ñoom Sidi Ahmed ak njaboot gi ah, lii de ku mu seddul sa xaw ma luy seral sa xol ci àddina ëttu laayen wala nga ñëw appel sama dal dangay mel ni ku nekk Tiwaawan mel ni ku nekk Tiwaawan maa ngi de passage maa ngi nuy bàjjen kalambay audio bi ma bàyyil tey ci suba rek dama ko dama yeewu liir ko rek gën a yeewu toog kontaan parce que bàjjen suma xarit la mu yaay faatu mbay ma ca kóonoon maa ngi koy bu baax bàjjan kala mbay lu ne lu ne lu ne la may defal ndeysaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi tam may ki wér yàlla fi yàlla bàyyi tam may ki wér amiin yaa rabbal alamin Serif sa soppee ci Amérique foofu foofu may nekk maa Kabir seen ak gaay ca Columbus ca Ohio ca Cincinnati ca kaaf South Carolina ak North Carolina Daouda Sarr waaw ah, Daouda Sarr ndeysaan ak ak Malay Njaay ñu nekk New York ak Maf de Barbe ma Fall ma nekk ak sama rakk jafa nekk mi papalaay ak libaas sàmba ak bastengal ak ñoom kana sàll ñu baax ñooñu vraiment bi bi ñu gisee bis bi ñoom ñëpp oote ak ak euh, sama waa ji pambay pambay euh, ma nga dëkk bronze ci fu naan grand cancos boo demee ca euh, Maurice bi Maurice ak vieux dame mu baax ma nga xamante ni tafsir bis boo fa demee wala ñoom Sidi Ahmed bu ñu fa demee rek mu yóbbu leen ci kër googu ñu tedd ñu baax a fa ne tafsir ñi bëgg baax ñu ngi baax baax ñu bëgg baax ñu ngi baax kon man sant naa la bu baax. jërëjëf laay xamante nañ bu yàgg. jërëjëf bëri na Ndakaaru man ak yow ak Chérif Mamine mi ak Pape Samba mii. conférence yi ñu ubbi xam nga li may wax bu baax. dëgg te nag euh, li may faral di wax gars yi naa leen man dama bëri baatina ah. chaque jour man leen dama bëri baatin sama soppe baatin bi du téye kurus de parce que nit a ngi jàng yor kurusam naan yaa salaamu yaa fekk moom sax amul jàmm. <laughs> am de sama na de. <laughs> nit a ngi yor ko naan yàlla may nu jàmm fekk moom amul jàmm su ko Sidi Ahmed rombee solu sax mu mu mer des fois nit naan man diw ni ma ko bañ ba pare répondre boppam ni man xaw ma sax li tax ma bañ ko c'est parce que tu es malade. billaay te Sidi Ahmed yooyu rek fi ñi lay teg loxo bu ñu paree ñooy nekk sa der yàq bi ci réew bi bëri na. nit juum benn juum nga nem ci tiktok bi yàq deram. waaw ah bi sa ngi ñëwul laay mu dama taar. di nga bëgg jóg mu tëla wala weñ dal sa kaw nga bëgg ko faxas mu tëla franchement te yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel te defar suñu dënn yi sama sopp bi mi nga ko doon wax sànq wax na tëgg fii bu baaxee lépp baax mm-hmm. waaye bu yàqoo li yàqu ci yow dina bëri dëgg la wala yàlla saan te nag gis nga ñun bu ñu deful nii gars yi ñu suñu kaw effectivement tubaab yi ñuul yi ñoo gën a bon tubaab yi weex liggéey tas suñu liggéey maam yi mooy seen objectif et mooy seen projet bu ñu teg ba nga xamante ni boo demee bitim réew di nga xam li ma la wax soo demee Chicago am na jàkk ju fa ne Mohamed Ali bi daan box moo ko fa moo ko fa tabax julli na fa ba tàyyi mais bi ñu xamee ne mi ngi dugg ci yoonu jullit ñi la ñu commencé gor seeni tànk Michael Jackson bi mu ànd suma pap ca ca defe naa bi ñu àndee ñoom ñaar disque dooram bu mujj bi Chérif Ousseynou Laye son papa la ko jox hmm? ca Atlanta Georgia yooyu yëpp nga xamante ni mag yi ñu ngi def la ñuy def kon suñu toogee ñun génération bi ba def nii li may ñaan rek mooy nanu nekk ay xarit am Chérif dëgg la nekk ay soppe mm-hmm. ba pare moytu àddina bi li fi xew kon fii may tëjee taf si maa ngi jégalu euh, sa maam sa maam Euh, bëgguma tudd bërëb ba ma demoon muy danooy def benn reportage ñu ngi ci reportage boo am solo armeelu Yoff yi lan doon wax Pape sàmba ban année la ñu ni le 29 août 1909 bokkul ak armeelu Dakar yooyu mais sa armeelu maam ma nga ca géej ga sanga bi le 29 août 1909 yàgg na dara. Mm-hmm. trop ku nu fa suul boo waxee doo ko fa fekk ah. ak kuy weddi weddi loo xam te nag dafa baax lu sa yoon nekkul génn ci. am de Pape Mama Fall bii ànd inspecteur douane bii ànd ak Balla Gaye mm-hmm. rakkam dafa gaañu ñu indil ma ko mu gaañoo Paris ñu indi ko ma denc ko wallahi wa rabbul kaaba ma denc ko dima euh, mi ngi may dégg dimanche ma ñoom ñu ñëw fa jël tableau bi di fa samp bi ñu laalee mu pëtëx ñu ñëw sama kër sone yuuxu ni ma bi fekk ñu ko fa dara ma leen sama maam waxoon na ko Seydina Issa Rouhou laa ilaaha illallaah moom mii di maam Seydi mii mag ñi ko fekk Cambérène sa baay bu baax maam Alassane Laay Thiaw daan na def bu ko maam Seydina Issa yónnee mbedd bu mu dem dajeeg moom mbedd bu mu dem dajeeg moom parce que mag noonu la ñu defoon yow mii laa mos a dégg Chérif nga koy wax nga ne Seydou Nourou ak El Hadj Abdoul Aziz fi pharmacie gi koo nekk yow mii laa déggoon ngay ngay nettali histoire boobu. Mm-hmm. kon gis nga sunu mag ñi ñu leen joxante loxo te bàyyi féeraange gi xam de alaaji bu doguma la mbokki téléspectateurs yi yéen a ngi seen spécial korité fii ci 2STV da nga tijji thème bu ama am solo macha allah mooy bennoo jullit yi. dëgg la sama am Seydina Limaamu def ci liggéey lu ama ama ama solo. Mhm. wax nga ko léegi bu ñu demee ci alquran na ngay fekk yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu inna akramakum inda atqaakum inna allaha alimun xabiir alquran dañ yéen nit kuy nit rek déglul foofu waxul sa yaa ayyuhal dinaa amanu yéen nit ñi la wax ñu ni tekk di déglu mu ni bàyyi leen xel ni maa leen bind ngeen am benn maam bu góor ak benn bu jigéen muy aadama ak awa bàyyi leen xel ni maa leen def ay population def leen ay giir nga dem africain yi européen yi américain yi ñëw ci biir africain yi nag wala ci xeet bu mu naa jël africain yi rek ndax waxtu waa ngi dem suñu borom ni ma def leen mu doon ay famille li taarafu nag bëgg ngeen xamante rek xamante bu gaaw. wallaay. waaye inna karamakum inda allah yatqaakum mënoon naa wax ni inna karamakum indakum almuminuun mënoon naa ni ñi gën a tedd ci yéen mooy ñi gëm yàlla mais déedéet dani inna karamakum inda allah ñi gën a tedd ci mooy ñi gën a ragal yàlla ragal yàlla nag fa ñu ko foog newu fa yaa koy wax léegi am na gaa xam ne lii du leen neex tijji sa site internet am sa benn page YouTube amoo liggéey boo xëyee sa néeg ngay toog boo toogee sa néeg da ngay dugal ay vidéo pour bu ñu xool bu xool yi ñu fay la nga am problème ku xool yow am nga problème kenn du la xool kenn du la woo yow daal yaay wër di xool lan ngay xool gis Ibou Sini laay moo xamante ni lu mu def nit ñu xool ko commenté ko nga ni Ibou Sini mii daal nëgal ma takkal ko ndax bu ma ko takkalee ñu xool ma pour ma am jarul tontu te looloo bari yàlla de subhaanahu wa taala fi ngeen ko teg newul foofu jàpp ni daal jàpp ni daal mbir mi daal tiijaan rek mooy dem àjjana déedéet xaadi rek mooy dem àjjana déedéet laayan rek mooy dem àjjana déedéet ku doonul ibaadu doo dem àjjana déedéet xam nga mbir mi fan la ne àjjanaal àjjana daal àjjana suñu boroom subhaanahu wa moo ko moom moo koy joxe waaye xam naa daal lu ñu wax wax wax wax wax moo xam tiijaan bi la ak ku mu doon ku mu doon ku ne daal baay baadu bi la ku mu doon ku ne xam naa daal na yonent bi salaay salaam daal bokkoon na ci lu sa yoon newul daal nga maandu ca min xusni islaamil mar'i tarku maa laa nag samaam seydinaa limaamu loolu la jàngal bi mu xoolee xam ni beddi konte ci xeet am na lan moo ko waral ci sant yi buñ ma nee noo sant ma ni gay ñu ni noo sant mu ni ay dara ñu jox ko ñaari loxo jox ma benn loxo léeg-léeg ma bëgg doomu sërif ñu ni ma ko may ngir lan sama gay gi ak ay daraam gi Seydina Limaamu ni teg leen fële sant baay yi ñun ñëpp ñu sant laay yaa ayyuha alladina amanu laa yasxar qawmun min qawmin asaa an yakunu xayran minhum wala nisaaun min nisaain asaa an yakunna xayran minhunna wala talmisu anfusakum wala tanaabasu إلى القاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون bu dégg sama dégg alxuraan alxuraan ne yéen ñi gëm yàlla bu leen reetante bari na lu ko Chérif Maami mi doon nettali dinaa ko àbb ci moom nettali ko yéen a ñaari gaa yi tëju di wut xutbaaniya kenn ku ne ci ñoom bëgg a jiite wilaaya ku ne tëju dugg sa wa bi ku ne duggee sa xalwa ñu ni leen kenn ku ne ci yéen kenn ku ne ci yéen na dem seeti ki nga xamante ni moo yées ci àdduna ku ci nekk di dugg fu ne di wër ku ne di dugg fu ne di wër di wër di waa ji moom day wër day wër ba yàgg mu wàññeeku ñëw toog kële moom di wër di wër ba gis kenn ku doy waar me melokaan wa doy waar mu jàpp ko indi lu ñu leen wax seet leen ki yées ci àdduna rek ngeen mar tànkam ku ci mar suufu tànkam rek ñu takkar la xutbaaniyatul uzma kenn ki di wër ba waaju doy waar ci buntu fu doy waar mu di ko nax di ko raay di raay bopp bi ba daa di mar tànk bi wàññeeku ñu bi mu ñëwee fekk moom kamu doon xëccuwal post bi kookaa ngay nelaw sàngoo mbàjjoom mu yee ko ni ko yow xanaa wëri wo mu ne ko man jotumaa wër lu tax mu ni ko man bañ ma nee naa wër ki yées ci àdduna ma mamar tànkam dama xool àdduna penkook sowu kanam ak gannaaw ma jàpp ma maa yées ci lu yàlla bind mamar sama tànk mu ni ko looloo tax waaja ma fekk ca fële te mu doy lool bi ma maree tànkam mu sama bopp ni ma yow looy sonn loo bëgg xutbaaniyatul uzma waaye nga bokkaloon néeg ba ngeen di xëccoo place bi takk na ko bu yàgg demal sa yoon mu ne ko foo jaar ba mu takk ko mu ne ko man sama tànku bopp laa mar xam nga kon lan la yàlla ne yéen ñi gëm yàlla daal gannaaw bi ñu génnee ci yoon naasu leen ba bu kenn ree kenn lek léeg ki ngay ree di ko saboote yéene ko safara lek léeg di nga dee moom mu jullee la te bu la julleewee bu la baalul àq boo maytul safara nga jëm yàlla na jullit yëpp dem aljana nag moo tax sa waa ji tafsir mhm. ci fanam yu mujj rasulillah sallallahu alayhi wa dafa jekki yooru yoor rek ni bilaal noddal xam nga yenn saa bu daan joxe information bu garaaw danaan bilaal noddal bilaal taxaw onze heures et demi ci suba nodd mit na yépp dal ñépp ñu wër ko mu fees dell nabee ngi taxaw sa waaj ñu defee loolu rek lay doyee nit ñi mu leen aawaakumullah nasarakumullah jabarakumullah assalaamu aleykum wa rahmatullah man kaana bayni wa baynahu mazlama falyaxtas minni qabla alqisaas yowma alqiyaama allahu akbar ni gaa yi ñëw leen ñu leen rek leen di ñaan maa ngi dem alaaxira te bëgguma yóbbu bagage yi jàmm koo xam ni mas naa laa tooñ lu tolloog tarfatal ay ni ngir yàlla ñëwal nga fayyu ndax damay waaj a dem alaaxira te bëgguma yóbbu bagage yi jàmm ko dama guddee répété ko répété ko kenn waxul troisième fois ci biir mbooloo mi am ku naan occasion ni bërit ni ko boo ko répété wul woon du ma wax waaye nag yaa ko wax ñetti yoon mhm. nabi mas nga maa tooñ ko man laa la la la la an yatahammadaka rasul bi dul man ma tooy man ma tey ko di tooñ nit déedéet doo seetaat li ngay wax mu ne ko billaahi mas nga maa tooñ kañ la mu ne ko kañ la ko keroog xonay na nga toogee naan ana nabiyu laa kasib ana ibnul abdul muttalib sa tënk giléem gi nga yoroon da nga ko doon wëndeel mu dal ma ci digg ginnaaw nabi damay fayu eh, damay fayu nabi ni ko ci ci saa si Aboubacar ni bëreet ni dar ci kanamam ni ko dóoral ginnaaw rasulullaay gi yar bu ci dal tama ne fi mu ni ko tooñoo ma Aboubacar yaa ngi may tooñ de man kii moom ma tooñ séquma kook yow mu dem toog Omar ni bëreet Ousmane ni bëreet ba ci Asan ak Useynu mun leen dem leen tooñ leen ma waaye sa maam ak dal ga ni tekk ba yàgg te xam nga ni wal kaffu maa darabat unsan wala zakaran maa xaadiman xaadiman min aybin wala mi waayi maa darabat أم سلوى ذكرت ما خادما عاب من عيب ولم يولد مننا وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا محمدا المختار في القدم مصطفى والكلف ما لا رب وأنثى ولا ذكر ما خدم عام من عيب انسا ولا ذكرا ما خادما عاب من عيب ولم يلم يبدو الخدر والكف ما ضربت انسا ولا ذكرا ما خادما عاب من عيب ولم يلم تندو سيد الحاج مالك موضوع waaye Okaasa bàyyi li ngay wax waaye yaa ngi may dugal ci géew bi parce que wal kafu tinqu rasuulillaahi maa darabat mosu koo tàpp un san jigéen ay soxnaam wala xale ku mu mën a doon no bi mu sa nit ba ni ko éy eh, jóol fii ñu ni ko moom dong mu ni unsan um wala zakaran mhm. musu koo def góor beneen satr bi lu mu ma maa xaadiman aaba min aybin walam yulami Maam Alaaji Malick ne kaasa naan moo la dóor yaram wi li malay lay wax te mu leer mooy non seulement moom daawul dóor mm. ma maa aaba xaadiman la ilaha illa allah maa aaba min aybin